mën a sama xarit bi jël ay milliards def ko ci ay juma jumaay Touba jumaay Tiwaawoon Masaalikul Jinaan jumaay Kaolack foo dem ci Sénégal ñi ngi tabax juma yu du jeex ay milliards yi milliards lañu def ci ay juma pour lan jamono boobu amuleen assainissement yu baax amuleen lekk gu baax amuleen paj mu baax amuleen njàng mu baax amuleen karange bu doy amuleen jiwu bu doy amuleen napp gu baax amuleen dara waaye li ngeen di xëñti xëñti li ngeen di jaay njàmbaar mooy daayira yi dajale ko tabax ay jàkka ay juma di peinture ba mu liis ku nekk di nag concurrence ku nekk di wan sama nag maa la dàq juma Touba di wan na moom juma moo dàq bu Tiwaawoon bu Tiwaawoon di wan na moom juma moo dàq bu Njaasaan kenn ku ci nekk di concurrence sa morom kenn ku ci nekk dajale xaalis kenn ku ci nekk naan nañu lever ay fonds ay milliards yi milliards au lieu ngeen def ko ci ay centre de recherche ak développement au lieu ngeen def ko ci ay institut fondamental de de de technologie de science ah au lieu def ko ci ay médecine au lieu def ko ci ay centre de de formation des ingénieurs au lieu def ko ci xam-xam ci agronomie ci mbay au def ko ci ay centre donc de formation en apiculture en pisciculture en pêche au lieu def ko ci walu wér gu au lieu def ko dedet da ngeen dajale ay milliards ngir nañ ay jum ay temple ngeen ko tabaxee ay temple vous allez construire des temples de prière <laughs> subhanallah ngeen ay jullit ngeen quoi ngeen ne yéen da ngeen bëgg dund quoi tabaxee Masaalikul Jinaan ba mun def xaw ma cinquante milliards Masaalikul Jinaan xaw ma quarante cinq milliards yoo xam ne état bay def moitié bi fi ngeen ko tabax di ko inauguré ma taxaw ne leen fii seen jumaay Masaalikul Jinaan ji bu ngeen demee ba ci kanam da ngeen xam li ko tax a jëm ak Macky Sall ma ko inauguré ñoom ba ay franc-maçon yu mag lañ duñu ko weddu ñoom ñaar ñëpp ngeen tabax ab juma dagee leen fa ñoom ñaar ñu joxante loxo teg seeni mafia seeni dil dil yooyu defoon ko Jinaan mooy feeñ tey ci dialogue bi moy feeñ ci assemblée bi la nason, ci ca Masaalikul Jinaan liggéey ko diggu dox ba ba legi aboutissement bi mo nek ni moy makki day dem legi ñuy xol ñuy indi waté Karim wad lolu moy transition bi na ci ñew ci kanam parce dem démb ma gis leen ñu bari yi ñaxt mbacki yu fay bi may ay doom ñaari doomam mu dem ci digg Masaalikul Jinaan nga dafa raj indi wali sek gor jigen ñom Antoine jog gor jigen ñom ñep ay ñom Ablaye mbay peex i way do sàmb moy mafia rek ci système bi tey réew mi gor jigen bi ñu daje ca biir Masaalikul Jinaan nag ne woo dañuy maye ñaari doom kàngamu mbàkk yu fay <laughs> maa jom bi dëgg dëgg dëgg dëgg mbàkk yu fay dégg nga maam Ablaye Mbaye Peex dégg nga maam euh, nu mu tudd sax Mansour Mbaye ci biir Masaalikul Jinaan ah mu ngoog de Masaalikul Jinaan mu ngoog ah waaw ñu ne moo fa ñu yu fay. ñu ne Mbackiou fay mooy représentant lan xalif général des Mourides ak Dakar ñu ne xalif bi moo fi Serigne Touba kon kay Mbackiou fay moom it par déduction mooy représenté Serigne Touba ci ci Dakar masaliku Jinaan waaw il faut ñu tabax ko bu baax def ci ay milliards loolu pour dóorukaay la pour ne jumaa ji lii def nañ ci tant de milliards ay superlatifs la créé mais ñoom système lañu yore di ki dund waaw dund luñu Serigne Touba dund luñu. gisuñu Serigne Touba dundaluñu li Serigne Touba bëgg dundaluñu déedéet dañoo ñëw fekk programme yi Serigne Touba ñu sànni ko ca àll ba jël seen programme teg ko ci kaw programme Serigne Touba tudde ko programme Serigne Touba fekk du programme Serigne Touba dañoo ñëw falsifier programme mu Sëñ Tuubaa jël seen programme teg ko ci kaw mooy ay milliards mooy ay oto mooy xaalis mooy puukare mooy géwal yi fii mooy sàmbay mbayaar mooy kërëb kërëb yéen ma gën a xam li xew ñu bari woo ngeen ma ngi di ma ci wax naan non sama taaliku ji naan nga de mbàkk yu fay li mbàkk yu fay gis naa sax ay taalibe murid yi baree bari di kaas naan mbàkk li mu def di bokku ci yoon yi di bokku ci yoon yi ah, ah bokku ci yoon yi mais loolu su Muntaxaa bokk ay nas ñoo nas seen i ak Basiru Mbàkke Abdou Xaadir gis naa ko ci biir seen mbootaay mi gaa ngi noonu loolu mooy mafia bi léegi ñooñu ñooy représentant Serigne Touba yi Bassirou Mbacké Mbacké Faye Mansour Mbaye Ablaye Mbaye Peex ak Maam Mor mi Maam Mor Mbaye waaw man nettali géej gi am naa ci N plus 4 am ci toolub xaal takk ci am ñaareel te fekkiwu ma déwu ma dikku ma damaa nettali dong ci géej gi dara leeru ma ci waaye am naa ci toolu xaal takk ci ñaareel am ci 4-4 tabax ci R plus 2 xam nga R plus 3 ki nettali géej goo xam ne fekkiwu ma tinu ma damaa dégg ñuy wax dong ma nettali képp loolu mooy système bi loolu mooy mafia bi waaw ñoom ñëpp a nga taxawoon te biir jumaa ja nag ñu mel na nag ñu mel na ñuy ngénte ci biir jumaa waaw jumaa nga xam ne pour julli moo tax a jaamu yàlla takk jabar takki tappale maasul mbàkki fee dégg nga maam waali sekk na daj ñi ci jigéen nga xam ne moo nañ ko ci biti warmaal jumaa gi déedéet waaw ah lii moo am ci réew lii mooy lii mooy yoonu murit waaw tay oh, bu Serigne Touba delu si waatoon ci aduna man mi lay andal li may wax ni bu ñewon Serigne Touba bu ñewon man mi lay andal ñom ñi ñom ñep da leen wedd bu ñewaton tay Serigne Touba fi man mi lay o ma ci sik sak mo tax li may wax ma ñemé ko li may wax bo gisé ma ñemé ko moy bu Cheikhul Khadim ñewon tay man mi lay andal yow mi ñaan ma li ngay wax moy dëgg mo tax man oh, ma ci tita rek regal faalewu ba kenn ay muntaxaay ki mbay bass ma ñun top tawu ma leen ñooñu rawuñu mënu ñu lu ma mënul xamuñu lu ma xamul waaw man ñi may sàmmal seen ndonu mooy mag ñi man mii ma leen sàmmal seen ndonu te sàmmal ndonu mag ñi mooy fexe ba lu ci bokk nga seppi ko sànni ko ca àll ba dénoncé ko ne lii bokku ci li mbàkk yi fay nekk du ndonu Sëriñ Tuuba li Mansour mbay nekkee du ndonu Alaaji Malick Waali Sekk ki ay jaxasoo ki ay tappaleek lu nekk li ko yàq diina ji yàqal Sëriñ Tuuba yàqal ñëpp man mii maay défendre mag ñi man ñi maa leen di défendre man du ñi ngeen foog na ñoo leen défendre ñoo ñu défendre ñooñu dañuy dundee mag ñi dañ leen di dundee man nak lekuma ci Serigne Touba di Franc Mali lekkuma ci El Hadj deureum wax ah mais nak liñu bëgg ñoom man maa leen koy waxal. kon kon li may wax mu neex mu naqari amul solo man yàlla moo ma bindee su may wax sama dëgg ak ku ma mën a doon ci kaw suuf dama koy wax ak ni ma ko sentir noonu laa koy waxee du ma ko wax mukk pour mu neex kenn parce que lii may wax waxuma ko man sama lii may wax nii utuma ci ku mu neex ak ku mu naqari utuma ci bës utuma ci payoor utuma ci dara yàlla laay tax moo tax ma di ko wax ak ñi ma koy waxal muy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon demb di Cheikhul Khadim Seydil Hadj Malick ak ñeneen ay El Hadj Omar Fouti yi ñi nga xam ne ci diina ji yëpp ba islam bi dugg Sénégal ba léegi ñi ngeen xam ak ñi ngeen xamul parce que yéen El Hadj xam te ñooñu mataguñu xarnu bi ñu fi am na ñu leen mag ci diina ji fukki yoon màgg ci diina ji di sàmm diina ji ba diina ji agsi ci ñoom mën caat juddu ñoom màgg ba doon ñu doon ñooñu ñëpp boo ko toppee ba lislaam bi tàmbalee ba léegi ñoom ñooñu ñëpp lay seede sama wax ji bëgg bu ëllëgee ñoom ñooñee ndam lu ñu am ci yàlla mën ni ma am ko ci yàlla ci lan ci qaala allahu qaala wax dëgg rek lii may wax yàlla laa ci seede seedewuma ci ak nit mu neex ab murit neex ab xaadare ki tijaane ki laayeen sama toppatawuma loolu li may wax yàlla kott laa ciy seet su ma ciy ut ngërëm yàlla ci yàlla laa koy sàkkoo sàkkowuma ko Sëriñ Tuuba sàkkowuma ko ci alaaji Malik sàkkowuma ci kenn parce que ñoom ñoom ñëpp kenn amu ci ngërëm yàlla képp moo am ngërëm du alaaji Malik du Sëriñ Tuuba du Mawlana ndax koo sàkku ci moom ngërëm day dem ci yàlla sàkku fa ngërëm benn ngërëm moo am ci yàlla ñu koy sàkkoo fa laa dem ñoom ñi fa dem di buuxante di ut ngërëmal yàlla fa dem di buuxante ñoom pour am ngërëmal moom dong moo tax utuma ki du neex kenn ak naqari kenn sama yónne wu ah, xamul yàlla man damaa xam yàlla man yéen bu fekkee da ngeen judd xamu leen man damaa am ay waajur yu ma xamal ku yàlla damaa judd rek ñu commencé di ma woon yàlla dama yàlla kii mooy yàlla naam ma ci ba ma mokk rumbux rumbux rumbux yéen nag bu ngeen xamul yàlla ba di ko jaawale ay nit ba dem di sàkku ay ngërëm ci ay nit kooku seen affaire la man bokkuma ci man ci yàlla ci yàlla lay sàkkoo ngërëm loolu leer yàlla nag doo dem ba daj ko ba làmb ko ba daj ko ba xam ne moom moo ñeel lépp nga dem ba am yoola am yàqin ci moom kennal ko ci sa biir xol bi nga xam ne doo jooy sa may fenn amoo foo yaakaar fu dul moom te lépp looy wax moom nga gisee doo dem ba teg loolu ci loxo mu nekk yàqin ci yow nag ngay ragal ay nit ay taaliba yu lay xoqatal ak sëriñ bu ñu gëm kër kër topp tawuma yooyu man kenn du ma ndax fi ma wéeru dama koo xam kon na ngeen jébur yiwu yéen waa Touba fexe ba dem sangu ji ci géej gi xaw ma géej ngeen am xaw dex ngeen sangatu ji ndax dafa tàng dégg naa amu leen ay garab tàngoor yu ñëw na ndox mi bari na yooyu guddi kenn du nelaw Euh, liggéey ya yàqu na marché occasion taw yaa ngi dugg ndox maa ngi dugg ca ca ca boutique ya jumaa ja ndox maa ngay tëmb yoon ne kenn mënut a dem poto poto yi weñ yi euh, yéen a ma gën a xam Touba loolu nag yéen a ko bëgg waaw yàlla nag moom du defal kenn lenn loo xam ne moom mi ko bëgg defu ci sabab defu ci yéen a defu ci xidma comme ni ko sëñ Touba waxee woon yéen nag bu fekkee da ngeen toog di xaar yàlla toog leen di xaar yàlla yàlla néew fi yàlla du leen defal dara dara yàlla du ko defal Touba gi sëñ bëgg Touba ba léegi amul Touba gi Serigne Touba bëgg ak Touba gi ngeen yore bokkul da ngeen a soppi Touba Serigne Touba nga def seen Touba yu bopp mooy Touba yu trafic Touba wu njuuj Touba lekk dégg nga maam corruption Touba wu naxaate Touba wu ñii di dund ñii di dee moo am Touba wu de tous les trafics comme ni ko maître Baba avocat waxoon Touba est le lieu de tous les trafics trafic nag moom du lu baax ba Serigne Touba di sàkku Touba di ko fàggu di ñaan di am yéene ngir Touba Touba ga mu bëggoon du Touba gi nga xam ne amul ndox mu ñu naan du gi nga xam ne amul ndox mu laab du Touba gi nga xam ne bu tawee taa du Touba gi nga xam ne dégg nga maam euh, trafiquant yëpp nga fa du Touba googu Touba gi Serigne Touba bëgg ba léegi kenn taxawu ci kenn du ci wax kenn du ci wax kenn doxu ko Touba gi moom Touba mafia la Touba c'est un système mafieux voilà mën mi maa ci sonn mën mi maa ci sonn ngir mu baax waaye daañ ma tëkku daañ ma wax lu ne waaye ndok man maa ngi àjjana te deewaguma man damaa nekk àjjana te deewagu moom ma yéene leen àjjana moo tax ma dee su neexoon lu wax ci Tuuba sama yoon nekku ci ku dund ku dee sama yoon nekku ci comme baaxu leen lu baax pourquoi ma war leen a yéene lu ngeen yéenewul leen ngeen dund yéene leen ngeen moom seen bopp yéene leen ngeen mucc fii mucc fee loolu moo may ma neexoon fekk